بسم الإله ينمو نهاي بلا مناي ولا انتهاي حمدا لربي خير مربي قد رم قلبي بالاقتداء لو سكوري بلا كفوري وهو النسير منه فداي màggali màggal yi màggal yiñ bëgg a fekke nag kenn ci royukaay kenn ci ñi ñuy seet muy ku ñuy wax Ablaye Sylla yoonu murit ñu ngi lay gërëm waxoon naa ko waxaat naa ko mboolem ñi fi nekk sëti sëñ Touba doom joo xam ne bu sëriñ Touba soxla mu takki dàllam ba mu dëgër taxaw ci soxla sëriñ Touba mu mel ne leen ci mën a jàngat mooy màggalug daaw màggalug daaw fii nu taxaw reen fi lan taxawoon fi lan taxawaat eh, màggalug daaw Ablaye si la li nga xam ne si def na ko ci ci ci ci màggal gi buñ ko dee xayma ñaari junniy nag yi tegal na bi ñaari junniy nag yi tegalee ba noppi. mu waxoon daaw ne fas nañ yéene bun ci àggaatee day noo ngi ñaan ci sëriñ darajey sëriñ Touba defewaat ko nu raaw niñ ko defee ne ren ñu tàmbalee ko ci oto yi nga xam ne ñooy indi suuf di ko def ci taataay ak oto yi koy manq ak oto yi koy maasale ak mbooloo mi personnel ba Ecotra defe naa kenn desul ren dafa wax ne fu fi jumaa ne jàkka ne fépp fuñ fi jàng xasaayit fépp fuñ fi dusurlu du du foo xam ne ay murit daje nañ fa donte la dañoo mat ñaar fukk Ablaay nee na ñi dafa nañ yéenee sol suñ dàll jënd ay nag yóbbu fa def fa ay taraanga ngir lenn ngir ngir ngir kenn rek muy jëmmi Serigne Touba. def na ko daaw def ko ren du ko ñaamal mu gën koo man gën a wér gën am kattan ba lim nësër ci Sénégal yéene ko ci yoonu murit mu def ko ni ko bëggee. mënut benn ndog ndaxte koo xam ne nii bëggut a ci dara te saa lu baax jotee jóge mu mu génne loxoom def ca ko ko ñaanal bu bu boo ko ñaanalee ba mu jot li mu soxla jàpp naa lu baree ba dana yomb dana dana dana dana gën a naat kon ci turu daayira bépp ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy ñaamal yàlla mi dara tëw ci barke safar bii li mu yéene ci liggéey bii muy def yàlla na ko am ni mu ko bëggee te du am benn coono. yal na ko man bu nag ni déwénee yéen ko indee yal na ngeen fi yàgg yal na ngeen ko fi yàgg a indi ba seenu njaboot yor leen ca kaw ñëpp nu bokk gudd fan ca xéewaluk sëñ Touba gi yal nañ fi yàgg. ba yëg ko ba yëg ko rek ca kaw ca kanam. billaahi yéen tamit yàlla fay seen tànk yi ngeen ñëwee fi nii. ñoo ngi leen sant bu baax jot nañu ci daañu ko defit ni nga xaye moom lañ ko war a def jërëjëf. sëñ Ablaye Sylla ak say ndaw yàlla na ko sëñ Touba nangu barke sëñ ci kàddu sëñ seex Mbacke moom sëñ Aliou. ñoo ngi leen di jox suñuy kàddu cant ak suñu kàddu ngërëm jëmee ko ci moom te la mu seqoon ak sunu waajur wa di Seex Sidil Muxtaar di jëf joo xam ne neexut a tudd ci rajo neexut a wax loole dañ ko ci ñaanal yàlla sunu borom yëkkati ko ci ba faw defal mbiram mboolem aw askanam ak. képp ku ko xam te bokk ci yoonu murit jëf ju ji mu jëf ci yoonu murit